billahi min asheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim wasalaatu wasalaamu ala asrafi al anbiyaai wal mursalin seydina wa mawlana muhammadin al amin wa ala alihi wa sahbihi wa xadimihi wa ummatihi wa sallama taslima asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu yéen mbokki téléspectateurs yi ñuy suivre ci seen web tv al azhar touba point com delsiwaat nañ tey ci seen jataay special gàmmu ci waajal gàmmu ama waltashin tey nag dikkoon fii ci euh, Cheikh Modou Bachir ngir seq moom jataay boo xam ne xaaj bu njëkk ba amoon na ko ak euh, suñu mbokk sëñ Mouhamadul Amin Touré jëmoon ci xasida ak raaya ak it euh, li ko lëkkale ak gàmmu ak it ca biir jataay ba mel na ni njariñ ya ca feenoon demoon na ba toll foofu mënee su ko lim sax ci jataay te terewul moom suñu borom taw feexal noonu mu génn ci jataay boobee loolu nag bokkoon na ca euh, lu mel ni tàggkat yi yonent bi alayhi salaatu salaam yooyu nga xam ne ñëpp xam nañ leen muy bu seeru Hassan ak Kahbu euh, ku ci ne li waraloon sëriñ bi tudd leen mel na ne ndekete kenn ku ci nekk sëñ bi daa indi say wax ca biir xasida ga te loolu it ñu ko daa jàng naka jekk te loolu ñu bari defuñu ci woon euh, bàyyiwuñ ko woon xel loola nag ñu ci doon sant lool ndax njariñ la loo xam ne si euh, lu nu mën a jariñoo la te dolli koo ko te it am njàngale mu rëy mu ca bàyyi it moo xam ne si yaakaar naa ni danañ ko ci jëlee ci di seetlu ak seetantal ngir mën a gën a dollee jariñoo ak euh, lii na fi sëriñ bi indil te di ko tudd ñoo xam ni tudd ko noonu rek waaye am na saa su ne lu koy lu koy waral kon Cheikh Ahmadoul Bachir tey alazar touba point comme mi ngi ci émission spéciale waajal gàmmu gi euh, ñu fas yéene yeggale nag jataay bi nga xam ne amoon nañ ko fi kon ñoo ngi lay ginnaaw bi ñu la nuyoo di la ziar di la santit ci euh, may gi ñu may ci sa jot ak li ngay tabja tabja tabja lépp it ñu bëggoon nag tey yeggale waxtaan wi nga xam ne tàmbali nañ ko fi kon ñu jox la kàddu gi nga nuyoo ñu soog a dugg ci jëmmi waxtaane bismillahi rahmaani rahim alhamdulilahi alladi jaxala saydina muhammad salallahu alayhi wa sallam afdal alxalaayiq wa jaxala tariquhu afdal afdal altaraiq wasalaatu wasalaamu alayhi wa ala alihi wa saxbihi almasaarix maa ngi tàmbali samay kàddu di sant sunu borom bi nga xam ne moo def saydina muhammad salallahu taala alayhi wa sallama muy ki gën ci mbindéef fi waaye yoon wi Seydina Muhammad indi diine jëm indi mu gën ci diine yi ngir mu soobu gën ci ngir ngir yi maa ngi ñaan julli ak xéewal yàlla nekk ci moom yonent bi sallallahu alayhi wasallam ak ñoñam ak i saxaabaam ginnaaw loolu sëriñ Babacar ma di la delloo nuyoo di la wax wa aleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakaatuh wa bi taxiisin fa xayoo bi ixsana minha aw rudduha waaye maa ngi nuyu mboolem mbokk yi ñu seetaan ci al azhar touba point te mooy asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa di ndokkal ñépp ci weeru tedd wii weeru leer wii weeru ngëneel wii muy weeru gàmm wi ñu nekk jërëjëf Cheikh Ahmadul ci nuyooyu am solo yu tedd yi Euh, kon nag ñu wëlbati ko dugg ci euh, jëmmi waxtaan wi euh, tey jii nga tànnoon sëñ Bachirou ñaari bayit te raay ku ne xam ne ni xasid la goog xasida gu am gudd la ñu tànn ci ñaari bayit kiltaa yadayhi lahaa sahyun tulaazimuhu baslun wa man liman laanu wa man jaaru agit bi man bu nii fi zawji rawdatihi baytaani min xawli man bil xorfi ammaaru loolu lu waral sëñ Basiiru nga tànn ñaari bayit yooyu jërëjëf euh, euh, sëriñ Babacar ci ñaari bayit yooyu nga wax te mooy kiltaa yadayhi laha sax yun tulaasimuhu baslun wa baxsun liman laanu wa man jaado hmm. ak bi man yu xaatibu ni fii sawri rawdatihi baytaani min xawli man bil xurfi amaaru hmm. li tax ñu tànn ñaari bayit yooyu bu njëkk bi bayit bu njëkk bi muy kiltaa yadda yi dafay bayit wu matale ci wane Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa wane ne Seydina Muhammad kat nit ku équilibré la ku équilibré la nga xam ne bayit wi buñ ko waxoon képp yam ci doy na aw tàgg ci Seydina Muhammad sallallahu muy Seydina Muhammad joo koŋ dara raxul hmm. bi man yoxaati ba nii nag hmm. ak yi ca topp lañ ci jublu mooy jéem wane sëñ bi sëñ tubaa ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mel ni am na mébét bu mu bëggoon ci yonent bi te loolu la ci saaxir yàlla lu mu am ñu wane ca nag sëñ bi lam ca wax ak lam ci bind loolu moo tax ñu tànn ñaari bayit yooyu waaye bayit wu ci ne ci xasida gi xasida gi téeméeri bayit la ak fukk ak juróom-ñaar hmm. bayit wu ci ne mën na ab émission Cheikh Babacar jërëjëf euh, sëñ Basiir kon mel na ni bayit bu njëkk bi yonent bi alayhi salaatu wasalaam ji woo koŋ mhm. la ci sëriñ bi di misaal mhm. baytub ñaareel bi nag diggam moom mhm. yonent bi alayhi salaatu wasalaam moom yi nga xam ne na mu mel yàllaa ko ni melal ak moom la seen seen diggante la cey junj kon ñu ñëw ci bayit bu njëkk bii kiltaa yi day yi jooju ana lu lan lañ ci mën a digg ci loo xam ne si làmb na ko te fekk na boobu ba léegi ñoo ngi koy jàngit xëy na mën naa am bàyyiwuñu ko xel. jërëjëf sëriñ Babacar bayit wi day bayit bu yéeme xam nga sëñ bi daf ci def lu jafe ci way ñaari contraire ñaari yoo xam ne ay contraire lañ nga indi ci benn bayit kenn ku ne la muy def ak ñam koy jafal sëñ bi loolu la ci def ñaari bayit mhm. ñaari ñaari mbir yoo xam ne ay contraire lañ waaw nga wax lañ cay def ak ñañ koy defal ñoom ñaar ñëpp waaye bala maa ñëw ci bayit bi hmm. nañ xool bayit yi jiitu bayit bi lan la ci sëñ Tuubaa di wax waaw yi topp ci bayit bi lan la ci sëñ Tuubaa di wax dana tax ñu dégg bayit bi bis hmm. nga bi mu ne xamab la xool xilmi fii annahu basarun wa annahu doonu xaqun afkaarun bayit bi ci def rek dane falaa taxisoo ibna abdallahi bil fudala bu leen xiyaas doomu abdullahi ci gaa baax yi fi jiitu woon de ndax waa innal kawaakiba yuxfiihaa sinamaaru jant bu ne daaññ bi diw nëbbu kon yonent bi bu leen ko gam-gam leeg ñu baax ñu fi jiitu woon de yonent bi mooy jant bi ñoom ay weer lañ mu ne lil Moustapha xayru xalqillaahi mantiratan mantiratan la wujihat nahwaha kulal war a xaaru yonent bi am na mantila boo xam ne nii yonent bi nga xam ne mooy ki gën ci mbindéef yi am na mantila boo xam ne bu ci jullit ñépp bu ci nit ñëpp. jublu woon. danañ gën a. daal di ne raamal waraa nay la fadlil musrihin loo waaye nag wal fadlu hinda rasulillahi xaraam nit ñi kat ñi ngi sàkku am ngëneel kenn ku ne di njëkkanti di jëm ci ngëneel waaye nekk ngëneel moom dafa campé dafa sax ci yonent bi sooga nag kiltaa yeddayi lahaa sax yun tulaa simaho bas dun ba bax soon li man laanu uman jaaro kon yooyu mooy mu ne lahoo mi maa lam yax yu yonent bi am na ci xam-xam loo xam ni mi def amu ko de aw jinnun jinne amu ko de aw malakun malaaka amu ko wasadaru misxaaru dënd bi xam-xam la fexe dell waaye lahu la dallahi surun la yusaalifa bil kaddi wal xilmi ruhbaanu axbaaru kon loolu leer na ba àgg ci lahu minal xilmi maa lam bi jabalun am na ci lawet loo xam ne ni montagne mënu ko yanu laaxal asa fil baraaya aw fa sabaaru daje naag ay lor ci mbindeef fi ñu di ko mettital mu mu nekk muñkat kon gis nga bayit yi ko jiitu gis nga bayit yi topp ci ci moom léegi nag bayit wii wax naa sànq ne ñaar la jël dana ñaari loxoom yii moom moom yonent bi bu ci ne am na jëf jum taxool nga xam ne jëf jooju du ko bàyyi ñu ne ko ah, mu ne bas joxe waaye bax sun mbugal ñu ne ah joxe bi kan la mu ne liman laanu ñu nooy baxsu bi pour la mu ne oman jaaru léegi nañ ànd ak sëriñ Tuubaa moom mu fi ñu yi gis nga wax naa ko sànq ñaar ñu bokkul ñaar yoo xam ne bokkuñu mu wax la ñuy def ak kañ koy defal wala ñañ koy defal hmm. sëñ bi firi na ko bayit wi ci bayit yu bare bare gis nga boo demee ci téere bu ñu wax wa innaka la xalaa xuluqin adim wala futuhul mukaram sëñ baa ngi wax naan kafaaxu firi bayit wi birrun wa baxsun fiihima xuxidaa lil xitli wal xibbi si sayfin wa si sabadun nee na ñaari loxo yont bi benn bi njekk la baax la bi ci des mbugal la waaye ñaar yooyu benn bu ci ne da ngaa wërante ngay def doo ko war doo ko bàyyi mu ne mel ne dana baax suñ boobu mbugal moomu lii xitili ki ko bañ njekk googu lii xibbi ki ko bëgg mu ne loxo bee nga xam ne mbugal la say sayfun loolu jaasi la aussi samadun bu la neex ma nga foo firee bi ci des gasalo mm-hmm. formace la kon xam nga mi ngi leer kon day mel ne loxo bii ki ko bëgg la loxo bii ki ko bañ la léegi nag mi ngi lay tuddal ñaar loxo mi waaye waxula lay joor waxula càmmoñ ci xasida gi waaye boo demee ci muxaddamaan nag la la koy détaayal na la yaminu nabi fiha ataaya li ijtidaa alayhi salaatullahi dil xafi wal hadi nday jorób yonent bii ay may moo ci nekk yasaaru nabi fiha xafaaya li ijtidaa fii nag mbugal la ci nekk ñeel képp nga xam ne day jalgati waaye xool sëñ Tuubaa di muy def ni muy def ni mu neexee gis bi mu tuddee xataayaay gi ci loxoom ndeyjoor bi mi ngi jeexalee bayit wa alayhi salaatullahi dil fi wal hadyi njëg yàlla nekk ci moom njëggalug euh, sun borom mi mi borom xéwalug sun borom julig sun borom mi borom njëggal gi ak njub day mel ne kon ñoom ñoom moom loolu waaye bi mu ne loxo càmmoñ bi tudd ci ñi jalkati mu ne alayhi salaamullahi kaafi sil bax yi muccug yàlla yàlla nekk ci moom yàlla mi nga xam ne mooy fekk ñu beew ñi kon loolu leer na léegi nag kiltaa yedde ki ki doon wax ñaar loxo mi dal la woon rek benn bi joxe la benn bi mbugal la léegi waxul woon nag ban moo ci xamoo woon ban moo ci waaw waaye léegi ci mu xadamaan nag neen loxom nday joor bi fii a xattaaya li si ci daa mhm. loxoog càmmoñ bi hmm? yasaaru na bi fiihaa xafaaya li sitida léegi kon indil na la ndeyjoor indil la càmmoñ léegi nañ ànd ak sëñ bi mu gën a leeral bayit bi mu ne amat yaminuhu humumul xays ndeyjooram bii day joxe teraanga joxe njekk di matale nit taw di matale nga xam ne amu ci xajj ak seen waaye haybatuhu day mel ne càmmoñam bii nga xam ne mbugal bi nee na respect la boo xam ni haybatu xaabi lay si respect gaynde bu ne ci biir gott koo gis na ngay tiite kon léegi day mel ne sëñ bi mu ngi jóge yow ci ndeyjoor ak càmmooñ ñëwoon na ci yow ci ñaar loxo yi rek waxal la ci la ci woon benn mm-hmm. mu wax la bii lii lay def bii lay lee lay def mm-hmm. mu ñëwaat ak yow ne la ndeyjoor bi lii lay def càmmoñ bi lii lay def mm-hmm. léegi nag mu ngi ñëw yow ne la ndeyjoor bi nag taw la càmmoñ bi gaynde la moo tax nga dem ci fatul fata fii matti lofta loolu mu indi ko ci benn mayit nee na ataaka xaysin fartawa mani tada yonent bi dafa ñëw mel nepp taw ki jub di ci jaariñu moom waaye wajja ak ka laysin fa tawa mani tada mu ñëw mel ne gaynde ki jalgati moom al ci mu gën koo leeral feneen ne mu ne ataaka xaysin fartawa mani tada wajja ak ka laysin fa tawa mani tada waaye mu ne attaque xay sin nag fa afaadal muxtidin yent bi dafa ñëw mel nepp taw jariñ ñi jub waja ak kalay sin fa abaadal muxtadin mu ñëw mel na gaynde alak ñiy jalgati léegi kon ñëwoon na waxoon na la ñaar loxo waxul woon nag ndeyjoor mooy def lii càmmoñ mooy def li waaye feneen mu ne la ndeyjoor bi lay def càmmoñ bi lii ngay def feneen mu ne la càmm ndeyjoor bi kat daa mel ne taw càmmoñ bi kat daa mel ne gaynde mu leer laat wax ne gay taw bi dafa matale ñëpp di jariñ ñu jub gaynde gi ñëw di fàdd ñu jalgati léegi nag loolu da koo résumé ci benn bayit ci Mawaahibu xëy sun afaada man istafaada lay sun abaada xida du xay taw la boo xam ne day jariñ ku bëgg a jariñu waaye gaynde guy al guy alkane la kon léegi mu ngi indi baatu xëy mu ngi indi baatub lays taw ak gaynde waaye dangay dem ba ci biir xaysu sakkoor yi lay su kafóor yi léegi nga dem ba ci biir nag mu dalay bàyyee ñaari baat yooyu muy xaysu ak lays taw bi ak gaynde ki dala ko bàyyi léegi indil nag ba bashir ak nasiir moo tax mu ne liman jaa yabqi min ka naylal mahal huda ku ñëw ci yow di sàkku ak may ànd ak njub lan lay am xataa yaaba shirin mayu bégga laa kon tat faxun faqarawal maxalaa day dàq ñàkk dàq bekkoor waaye nag li man xaadahoo jahrun lëkkum saa tajorin ku ñëw ci ànd ak ignorance ak réer di gérée géréelu xasaa bun sa didan mbugal mu tar yórusul faqara wal xatala ak ñàkk ak rey ñu ne ah mu leerlaat ci muqaddamaat ci ñaari bayit basiir bi ñan ñoo ko moom mbigle bi ñan ñoo ko moom waaye xuppe gi ñan ñoo ko moom xam nga indi loon ñaari loxo hmm. indil la nday joor ak càmmooñ hmm. indil la taw ak gaynde hmm. léegi mu ngi lay indil Bachir ak Nasir mu ne naq yoon yont bi ku sedd la ku xay la taq yoon ku ragal yàlla la saalihun ku yëwén la ku baax la waaye waxoo muslihun kuy baaxalaate la daal di nag Bachirun limandillaahi bil xaq yuzhinu yonent bi day bégal ki nangoo toroxlu nangu ne yàlla am na waaye nabihun yonent bi dafa yeew ba ne jar adibun ku yaru la dafa yeew ba ne jar waaye yaru am kersa yar ay tiram nabihun adibun zu ayaa in muadamun waaye nag nadirun liman bil kufri wa shirki yu'linu day xupp nadir la ci képp koo xam ne dangay ngay feeñal kéefër ak bokkaale yàlla kon ndekete loxob ndeyjoor ba ba muy joxe ki nangu na yàlla am na ko ci yàlla moo ko moom waaye càmmoñ bi nga xam mbugal la ndekete ki nga xam ne day feeñal kéefër ak bokkaale kooku moo ko moom nekk taw ba ki nangu yàlla waaye nekk gaynde ga ka nangu ah ka weddi kon gis nga sëñ bi ni mu koy leerale léegi nag loolu day indi ñaar day indi ki ko bëgg ak ki ko bañ mu ne muhibbu muhibbuhu fii raxatin wa nihma ki bëgg yonte bi nga xam ne moom la ñuy bégal moom mooy moom la ca loxoom day yor ba kookat mu ngi ci nof laay ci xéewal xàppi waaye mubxiduhu ki ko bañ nag fii fitnatin wa niqma kookat moom la gay moom la mooy jëfante gaynde gi fitna ak mbugal ku gis gaynde moom fitna teew mbugal mbugal teew léegi nag nga gis ñaari baat yooyu ni mu koy leeralee hmm. salli xalaa baabil hudaa na ilma daa muri na daa mooy nday mooy gaynde ga salli wa sallim yaa xadir xalaa siraajikal muniir wa huwa al yàlla yàlla na nga julli sëlmal sa làmp bu leer ba kooku mooy kan mu ne mooy kiy bégle ci fan bii ne amin waaye mun mooy wan nadir kuy xuppe bi ne xamin ca mbugal ma gis nga baydu yi da nga koy déggee arsalnaaka shahidan wa mubasiran wa daaxiyan ilallaahi bi isnihi wa siraaj munira nga xam ne suñu borom da ko yónni muy bégle di xuppe waaye nekk làmp bu leer naññi di bégle moo tax mu ne bisin niwaa bisin nawaali mooy loxob ndeyjoor ba waaye lay sil xitaal yi mooy loxob càmmoñ ba kon gis nga nim la indilee basiir gi ak nasir gi te ba tey ñu ngi ci kiltaa yedda yi laxaa sax yun tulaasi mu foofu basiir gi mooy loxob ndeyjoor bi nasir gi mooy loxob càmmoñ bi boo demee ci midaad yi nag ci benn bayit sëñ bi dafay résumé loolu ñu wax mu ne rasulun karimun kii kat yonante bu tedd la laa yu baa xaa mukarramu kenn ku mel na moom ci teraanga amul waaye nag bashirun day bégle bashirun nazirun minhu bi nafi wa durri day bégle ci njariñ di xuppe ci lor huwa alladi xaadan nadaa li ma ndeej yi li ittidaa ku ñëw kat ngir wut si ak may fekk fa ab tag waaye yow man na xaafa bi tëddaa ku ñëw nag indi fa jalgati laa xari daa bi lokkami kon gis nga sëñ bi ni muy indee kiltaa yeddayi la xaa sax yun tulaa si moo ndekk ndeyjoor la ak càmmooñ ndekk ndeyjoor bi mooy taw bi ndekk càmmoñ bi mooy gaynde gi ndekk ndeyjoor bi mooy Bachir ndekk gaynde gi mooy Nasir. Mhm. loolu yëpp nag mu leeral ko nag ci benn bayit ne janaatu haadi mhm. yonent bi ajjanay ki jub la waaye niiraanu haadi mhm. sawaras ki dëng la kon kiltaa yadayhi lahaa sax yun tulaasi moom tey nday jor mooy ajjana ku ko topp dem ajjana bee mooy sawara ku ko toppul dem sawara léeg-léeg sëñ bi indi baatu bashir rek mun a ñumm foofa daf ci jublu ñaari sens yëpp ndax alxuraan léeg-léeg moo tudd Bachir fekk li jublu mooy xuppe la wa bashiril munaafiqiina bi am na la mataam na nga bégal naafiqi di am mbugal mu tar mi leen di xaar lu bégal xupp la moo tax ci Mawaahibu sëñ bi bu indee Bachir indi Nasir lu ci ne da ngay jël sa maanaa bu indee Bachir képp nag day day yor ñaari maanaa yi moo tax mu ne daakal mu niiru daakal Bachiru nga xam ne ñaar yëpp lay dugg lahu usiiru rek bi sa waaye xoolal in raama xilman aw raama xulman aw raama xulman baaxi li xaay ñu ci kiltaa yedde yi mu ne ki ñëw ci yonte bi di sàkku xam-xam fa zaaka yuhuda kooku dañ koy gindi waaye ku ñëw nag aw raama xulman di sàkku koom wa zaaka yuhuda la foofu kooku dañ koy jox addiya waaye nag aw raama xulman nag ki ñëw nag indi ak tooñ wa yurda baax kooku dañ koy alag bi saqa ayn ci taxay bi kon gis nga kiltaa yeddahi laha sax yu tulaa si muhoo mi nga ko mu ne haadin mu jiiru nuurun mu niiru xaysun bas yuru di si daay ba tey kon nday joor ba tey mooy taw ba ki jub waaye xaamin nasiiru daahin basiiru laysin gis nga kiltaa yeddahi laha sax yun tulaa si muhoo mi ngi noonu sëñ bi firee ko noonu ci biir firee ko nii ci biir ay waxam waaye nag sëñ bi li muy indi di joxe misaal ci yonante bi di ko misaal ak taw te yonante bi mooy jëmmi taw ndax umin ayaat yi an yursil riyaaha mubashiratin taw day ñëw di bégle mu def yonante bu nekk bashir di ko meew ak gaynde te yonante bi mooy mahdul xaysi yonante bi moo tax taw di am la ne ci gaynde bañ di ko ragal ci yonte bi la jóge mm-hmm. sëñ bi nag bañ ñu fàtte loolu moo tax ci biir xasida gi mu ne fal xaysu min rakk bi juusal bare soo xajaleen mm-hmm. nee na taw bi buy sotti mel ne bu amee dafay am gàcce ci tabak yont bi ndax tabak yont bi moo ko raw waaye walay su xaabin li xawafin min fu faraaru nee na gaynde nag sibi gaay nag àll bu dee yont bi day daw ngir ragal mm-hmm. kon ndeke yont bi rek moom la waaye kiltaa yi dëkk dañ ci gis na yonent bi ko équilibre la. waaw surtout. gis nga barab boo war a dëgërale. boo ko lewetee yàq nga lu bari. waaye barab boo war boo war a lewetale boo fa dëgëree yàq nga. Mhm. kon yonent bi dafa nekkoon ku équilibré koo xam ne koo xam ne ni lenn lu ne da koy jox barabam. Mhm. bu waree dëgëral dëgëral bu waree nooyal nooyal waaye du nooyal fu war a dëgërale du dëgërale fi war a nooyale. loolu nag alxuraan moo ko jàngal yaa ayyuhan nabiyyu ko kufaara yow yonent bi na nga jihaad ak yéefar yi waxalus alayhim na nga biir ci ñoom wal munaafiqiina waaye fu mu ko wax ci ñu jub waqfid janaaxaka limani tabaxaka minal mu'miniina na nanga nooy ñëpp ngir julit ci julit ñi nga àndal wala kunta fasan xaalisal xal bi lan fa doo min hawlik boo doon ku dëgër tàng xol xat xol kon doo gis kenn kon ma ngi koy digal mu nooy ci ñi muy toogal kon gis nga kiltaa yeddayi laxa sax yun tulaasimoo basdun wa baxsun li man laano man jaaro gis nga équilibre bi ci nekk mooy dafa nekk juste ci digg bi ku mu war a bégal bégal la waaye ku war a ku jalgati mu jëf leen teeg yow looloo taxoon daan eh, maam atte lislaam bi daan ñëw ku ñu a dagg sa loxo da koy dagg du ci am yërmaane kon gis nga kiltaa yeddayi laxa sax yun tulaasimoo basdun wa baxsun li man laano wa man jaaro mi ngi noonu xoolal laqad jaakum rasulun min anfusikum xarisun alay ma anittum xarisun alaykum lu mu ci teg bil muminina raufun rahim dafa amoon ñeewantal am yërmaande ci jullit ñi kon kiltaa yedda yi rek foofa dañ koy xamee ne yonent bi nit ku mat la nit la koo xam ne ne lu ne dafay teg ci palaasam te loolu mooy xakim sëñ Babacar Cheikh Amadou Bachir jërëjëf mel ni loolu kon yonent bi mooy yonent bi rey waaye mooy yonent bi rey it mhm. mel na ni kiltaa yedda yi lahaa sax yun tulaadimuhu buñ ci doon defee yeneen jotaay mel na ni sax euh, ni ma déggee nii. Mm-hmm. mënees na cee bariwaat luñ ci wax. Mm-hmm. Euh, xam na waxtu wi ñu cëraloon nit mel na ni jeex na. Euh, du ñàkk danañ yeggalewaat bataay bi jotaay bi ci bayit ba ci war a toppaat. waaye am lu am solo loo xam ne si dégg nañ ko ci jotaay bi. Mm-hmm. ci xamle ni mel na ni bayit bi sëñ bi juñ na ci rek ni. mu ñaari loxoom ya. te leerul woon sax ñaari loxo yooyu. yan la mu ñeel ñaar kenn ka nga xam ne nooy na ak ka nga xam ne si jeng na. waaye dem na ba ci biir nag nga indi ni ko ci yeneen xasida yu bari yoo xam ne wane nañ ni loola loxob ndeyjooram la junj ca moom mooy mooy terale mooy taw ba mooy kay bégale euh, ba ci di doon àjjana ci ña nga xam ne siit it euh, nangu nañ mm-hmm. waaye mel na ni loxob càmmooñam boobee it moom mooy ki nga xam ne si doon na gaynde mhm. mooy ki nga xam ne si dana xuppe mhm. waaye mooy ki nga xam ne it ñeel na doon na sawara mhm. ñeel ñi nga xam ne si eh, weddi nañ euh, gën naa xóot loolu sax waaye mel na ni waxtu bi ñu cëral woon jeex na takk dama la jox sëñ Basiru sa kàddu gu mujj nga tàggatoo incha allah bayit bi ci des moom dañ ci defaat beneen jotaay yeggale ko bu soobee incha allah jërëjëf sëñ Babacar xanaa sant rek ak gërëm ñaan ñu fekkee gàmm gi te rafet nañ ko fekkee te lépp luñ ci def suñu borom nangu ko di wax ne wa axiru daxwaana an alhamdulilahi rabbil alamin wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. jërëjëf sëñ Basir ñoo ngi dellu di la ndokkeel di la jaajëfal di la sant bu baax a baax a baax di wax ni bokk yi tey lii la leen indiloon muy seen euh, spécial gàmmo euh, ñu defee ko fii ci Sam ci kër sëñ Mouhamadul Bachir Touré euh, di leen jox dox dox di di daje ba beneen jëmmi jamono wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.